une femme un euh, yi ñu posé leen euh, deux questions yu am solo mbokk yi est-ce que lu toll ni président de la république tey mën naa takk lu naan takk suuf te kenn du ko yëg te du siw est-ce que rek loolu xel nangu na quoi te est xel mën naa jàpp loolu loolu ni président de la république takk une euh, benn deuxième femme def ko takk suuf iska man na ko na ba du ko yëg te tey bu ko nit ñi yëgee wala première madame yëg ko bu boobaa nan la coole nar a def si dëkk bi mbokk yi ñaan kenn ku ne jox si xalaatam beneen moom mooy feret bëggoon a takk ki nga xamante ni mooy li euh, bëggoon a takk faama pour dem di ko annoncé ay sentiment moom parce que góor bu yorut war naa dem te bëgg a takki soxna te ki ngay takk yow si nga yaakaar mu jox la xaalis bi si nga yaakaar moom mu def lépp si xew mi yow nga bañ def dara di toog du xool est-ce loolu tamit tey mbokk yi yow mi nga xam ne yaay góor est-ce que yow sa ngóor war na laa may loolu nga war a dem ba nar a takk soxna moom mu yëkkati xaalis di la ko jox wala mu yëkkati xaalisam di def ci xew mi yow doo si def dara beneen bi mooy nga xamante ni Samir ak soxnaam gis nañ ko muy doxaan soxnaam génne ko. si biti parce que tamit jigéen war naa mën a takk góor loolu sax mënta nekk jigéen du takk góor mais góor mooy takk mais góor mënuñu ko mba nan lay takki soxnaam bu noppi soxnaam di ko yilif lan moo waral loolu lan moo waral góor di takk soxna ba noppi soxnaam di ko yilif ndax ñàkk matadi la wala ñàkk fay la wala am nooy doxale ba sa soxna yàpp la ñu leen wax ngeen commentaire si abonné like seen partage